asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax yaxa leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo wax ñi nga xamante ne doo bes chaîne welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo comme ni ngeen gisee si photo xamante ne xam naa ne sama internet yëpp leen taxaw muy Atlético de Madrid contre euh, Real Madrid di Olympique de Marseille contre euh, le Paris Saint-Germain di beneen match bi xamante ne derby londonien di euh, Arsenal contre Tottenham mu nekk ay match yu neex yu xamante ne xam naa ni ñëpp dinañ jàkkaar surtout ñooy xaar Pape Matar Sarr contre Arsenal donc loolu match la Atlético de Madrid euh, Real Madrid match la match choc la xam donc du côté de Liga espagnole euh, diggante OM PSG nag ñooy xaar Iliman Ndiaye enfin ah, mu dugal biiram kanak la comme Kylian Mbappé pourquoi pas lu mën a nekk la mën nga dugal sa bii Ismaïla Sarr lañu moom dañu wax ne euh, dafa forfait donc match yi mooy match week-end yi mbokk yi dañuy dooree xibaar parce que Lamine Diadhiou ancien joueur de Casa Sport nekk champion foofu gis donc al ahli wala al hilal sama internet yi may xawa a jaxas parce que nek club yi am euh la tudd sax Soudan dafa am di côté de Arabie Saoudite mu xaw a jaxase seen maayet si commentaire yi wax leen ma ban club la donc Lamine Diack Grenoble c'est bien ah. moom nag ba tey choisir ndax Sénégal Gambie de man franchement yéen woon naa ko Gambien yi yéen woon naa vu que ñun ñuy am si ay éléments offensifs dafa bëri lool donte joué na si kii ba tey amagul ay trois matchs officiels yi xamante ne voilà et que moom décidégul carrément génn si Sénégal génn un peu Gambie moo ngi noonu daal Lamine Diack daal du côté de Grenoble c'est comme pas Ousmane Sarr c'est des joueurs yu xamante ne nekkoon nañ championnat Afrique on attend que ñu wane euh, Europe na seen talent dinañ ko fa dévoiler ñu koy souhaiter nag bonne chance franchement euh, bu ñu avancé commencer un peu donc euh, damay ñëw si yenn information kii di Bellingham tey dafay jóge si entraînement yi estomac la amee mais ñu ngi naan la garaaw suba dina reprendre entraînement mais déjà ñoo ngi koy xaar si choc waa Real Madrid donc loolu xam naa Real Madrid dina intéressé trop kii di Güler nag tey gis nañ ko à l'entraînement loolu très bonne nouvelle du côté de Real Madrid gis nañu mu mu entraîneur turc boobu noonu xam ñu ngi xaar boobu bële très technique mën a football numéro 10 euh, jóge fële si seen rival nag di Barcelone dañoo dañoo prolongé di seen entraîneur jusqu'en deux mille vingt donc loolu par résultat yi résultat moom bu baaxee entraîneur dañ koy prolongé beneen entraîneur bu ñu war a a wax c'est c'est Nagelsmann di côté de Allemagne c'est officiel désormais officiel euh, bu ñu avancé bu ma toogee Allemagne damay wax Guirassy international guinéen bi euh, tey dugalaat na bi six matchs six matchs la dugal onze buts record c'est c'est extraordinaire sénégalais bu ko defoon dañuy tàcc suñu loxo africain la ba tey bu ko defee dañuy tàcc suñuy loxo xam nga donc rawatina mu nekk suñu mbokk Guinée donc ancien joueur de Rennes ngeen xam ko bu baax baax du côté de Amiens et tout nekkoon française donc mu nekk def ay prestations extraordinaire du côté de Bundesliga Teddy Lingard Lingard ancien joueur de euh, Manchester United ndax Nottingham Forest la jógee yàggul nii donc amul club il est libre nag pour nag euh, may ko un mois essayer xool moo ngi fi parce que ñu bëri dañoo yaakaar dafa jël poids nangam nangam mais dañuy toog benn un mois alors la si kaw boo xoolee Sadio Mané ñoom trois euh, def te équipe boobu mu defal 2 ñoom Al Nassr cinq lañ ko dóor donc donc c'est quinze points yi ñoom ñuy am dix huit donc al xilaar ak ñii moom al al ahlik yooyu benn point la quoi al bu ñoom calculé parce que démb yow def match nul donc mu nekk samna bu neex tey gis nañu euh, ñu koy ñoom Edouard neex ñoo ngi xamal leen sax euh, Cristiano Ronaldo wax nag waxtaan ak dirigeant yi xamal leen ne si foofu lay jëlee retraite am et que championnat bi neex na ko nee na le fait que mu sol yëre yi euh, ñuy sol noonu seen seen seen fête de bi ko neex la quoi Arabie Saoudite dëkk bu ko neex la championnat bi moo gën a neex ñi ñi yaakaaroon jeexalu jeexalu moo dugal bii te championnat bi dafa métti donc tey victoire bu la donc neuvième a baax et bu ñu waxee nag si suñu gardien dal suñu gardien bi bal bu ñëw dugg ñëpp ñëpp duñu ma interpellé pour que ma wax si Edouard Mendy maintenant Edouard Mendy nag réagir na nee na bii bi premier bii bi bu Cristiano Ronaldo nee fi mu jeune moo tax gisul dara dara dara bal daa ñëw dugg gisul dara donc loolu man nañu tax mais man bii boobu sax waxuma sondal man bi may dal Idou wax na ni c' est pour le quatrième but mooy bii bu kii san si loo xam ne jaar loolu fait de fait de kii la c' est bii bi euh, on en a euh, donc foofu la foofu la ñuy casser mais moom daal génn na xamal na loolu peut être moo ko soñoon mais mas bu xamante ne am na tey si diggante Nice bi xamante ne dañoo ëllëg carrément waa Monaco deux penalty euh, kii di balagul dafa raté bal bi deux penalty nga raté ñaari gardien bi nag ñëw na génne bulka nee na non première bi dama gis daaw maa ngi fàttaliku fu fu mu tir mais fàttaliku ne fu mu tiroon def ñu gis Aliou Badara Aliou Badara gis ngeen maa defoon nag interview moom si vacances moom moo xam tey dugal na joué ay am na sax benn tir donc c'est intéressant pour la suite suñu ancien joueur euh, petite catégorie formé par jàmbaar mu jógee Lausanne Sport donc tay mom aussi tamit euh, nemmeeku nañ ko ci match stade du Ligue 1 donc ñu def après ñu def victoire sur Paris Saint-Germain ñeu fekk Monaco ko jël nek leader gagnou que Nice <laughs> équipe bu ñuy bàyyi xel la gis nañ Sofiane Diop titulaire donc ça ça commence à être intéressant du côté de Nice formation yi ñoom Iliman Ndiaye seen président Longoria finalement dina resté ak port la ñu fiy jëte xew yëpp day démissionné si dina euh, laa mën a waxee pression avec leneen ak leneen ak leneen parce que Ismaïla bu demoon xam nga dañuy jàkkaarloog seen i match donc euh, pour man lu baax la la fekk mu toog donc mbokk yi mu nekkoon ay information yu wóoroon partagé wax ma seen xaar ak seen gis-gis ma jaajëfal leen wax leen ba beneen sur Senfootball TV